المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائرة مقدمة الخدمة ندرس ak yéen ci biir liggéey yi nga xam ne daf ko baaxoo def ci weeru tedd wi te tey jii Serigne Bada Abdourahmane mu ñëw ak ñun ci laaj bi nga xam na fi bàyyi koo ci mbokki jullit ak ci mbokki taalibe yi kon dañu mu ñëw su ñëw ba noppi door a dugg ci laaj jërëjëf sëñ Mbacke la ñuy def ku leen ci topp doo dund diine nee na ñooñu ñu ngi leen moytu ak nag aaya ba daa jàll ndax dafa mel ne ñetti xeeti nit ñoom la nit ñi topp borom xam-xam ak ab jàngkat ak borom alal moom la ñetteel wala ñu nekk ni sunna dahab mel na ñoo ñëpp wax na ku ci nekk ku jaarul yoon na ngeen moytu leen jàpp ne xam-xamu kese wala jaamu kese wala alali kese rek day tax nit ki ñu teg ko ci kanam waaye na fekk ni ma ko yoon loolu la borom xam ak solution jërëjëf sëriñ bi ci tontu la bi mbokk bi tamit nee na laaj mu kaddu moo xam ne day góorgóorlu ci jaam waaye nag soññ ak njabootam ci jaam yàlla lu tax la leen waroon ci seen njaboot def kon doomu aadama ngir mujj daal na fexe nekk di yàlla bëgg waaye njaboot tamit na fexe bañ xam li yàlla bëgg mu bu leen ci yaree nag ba wan leen ñu xam xam ne jaar bàcc waaye fekk dafa bëgg nag ñaaw te def wala lu def am na ca responsabilité boo xam ne boo liggéey boo dana ko laaj. la mu ne laaj laaj bi suñu تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون la laaj yi muy nekk. waaye ci borom xam-xam yi wax dañuy wax ne bis bañ ci lay xew dañuy wax ne maqulu qawlin mahzuf la bis bañ baa ba ñu dajale jàll bi borom leen wax ne yéen nit ba dekkal ñëpp war leen a yóbbu ci ëtt bañ leen di leneen loo wax ne yéen jàmm ñi doon dëgër bopp yéen nit ñi jinne nga xam ne yéen a gën a dëgër bopp ci bindee yi kaay leen ku mën a rëcc dama jéem a rëcc foo mën a jaar ba raw rek jaar àdduna gi nii yàgg suuf saa maanaam gox asamaan ak suuf saa gi nii yàgg lool ku mën a rëcc rëccal waaye na ngeen xam ne loolu dañ ci ndigal loolu ndigalul taajis fekk koo xam ne da nga ko naan defal nangam te xam nga ne la mu def mun ne loolu lay tekki fan futuw ji tekkiwu dem leen waaye waxin la ci ne kenn ci yéen mënta rëcc te it nag yursalu aleykum ashwaat shuwaatun waaye ba ci topp day firndeel dañ leen mbugal ku mën a daw nag a xam leen ne mbugal dina wàcc ci yéen loolu yéefari ñoo ko mën kon yaa maasal dina bu leen si maam eh, la waaye xu xaas la ci jublu jublu ñu wax doomu aadama yëpp yëpp waaye ñi ci gëmut yàlla doon yéefar ba yomal xiyaam daañu leen wax loolu ku ci mën a rëcc rëcc in istataatum an tamkudu min aqtaari samawaati wala dafa mu waaye nag laa tamkuduuna la bi sultaan kenn mën nga rëcc lu quwa doole yoo xam ne da nga mën doole joo ne kenn amu ko ci yéen tey man yàlla rek ma am doole wax ne nag yursul aleykum ashwaatun min naari wa nahaas falaa tamtasiruun daa leen sànni sawar wu ak sax xër leen saxar loolu leen tàkkal sa te kenn ku leen di jàpp ñu do am loolu la borom xam-xam yi ci aay boobu nga dégg kon ak tiital la ak xuppe la ci képp koo xam ne ko weddi yàlla xam ne bu faatoo ci adduna ngay mën a bañ a toog nuru waaye foofu yomal xiyam daal di wax ne asamaan léegi wax nañ ne asamaan soosu ak suuf soosa bokk tëg si ndax yomal bu fekkee ci yomal xiyam la asamaan dañ koy sox yomatu waddal la waaye doo di wa samawaat day wane kon jeneen asamaan ak suuf soo xam ne moom la alxuraan dafee neen assaahira foofu lay xew dañu gaaral yéefar yi ne leen kaay leen yoon waa ko ku mën a loolu waxin la mooy ne kenn ci mënut a rëcc tey mbugal la bu ñu ne wàcc seen kaw yónnee wu tàkk ak xir leen saxaar loolu la ñu kii ñu ne day laaj ne dafa am lu ñu tuddee wala lu nit ñi di wax datal koor ak dundi koor muy laaj wax na loolu sax na ci suñu wala déet ak fekkee sax na nag nan la ñu mën a woo ci jubloo waajal boobu ci jaamu yàlla day sax na ne yonent bi sallallahu na woor weeru Shaban wér na ne sax daan woor ci Shaban daawu ko woor ci weneen weer koori nag li lim ci daan woor Shaban daawu ko woor ci weneen weer wax nañ ne daan waajal am na ay xadis yu yoo xam ne donte yenn borom xam-xam wax nañ ci ci ak wéram waaye yu mën a jëfandikoo ci yu mel nii la daan na wax bu rajab teroon ne yàlla na ñu barkeel rajab ci rajab ak Shaabaan te eggale ñu ci Ramadan eggale ñu ci Ramadan kon loolu mën na ko tudde kat waajale ko jaamu yàlla waajal ci jaamu yàlla giñ ci nar def balaa agsi nga mel ne ku ci tàggat di woor ci biir Shaaban ngir bu Ramadan dikkee fu mel ne coono wàññi wala fekk sax nga xaw a tàmm woor loolu bëgg nañ waaye bu jàllee it ndax yonent bi alayhi salaam moo ku woor Ramadan ba mu fan ci weeru Shawwal mel nga ne ku woor ku dëkkee woor nag koy saxal mel nga ne ku dal loolu mooy ne boo wooree benn boo defee benn ñu fay fukk borom bu ma ko wax ci alquran jaabil xasanati fa lahu ashru amthaliha kon boo waree weer ramadan ba jeex am nga yoolu ku woor fukki weer boo waree juróom-benn fan am nga yoolu ku woor juróom-benn fukki fan juróom-benn fan mooy ñaari weer kon moo tax ñu bëgg juróom-benn fan ci shawal ñu woor ko doon ci masab Maalik nag dañuy sib ñoom borom xam-xam sësale ko fësal ko juróom-benn fan yooyu waaye ci borom xam lañu sib mu sësale ko fësal ko ngir bañ ñi xamul jàpp ne kon li am solo mooy juróom-benn fan ci biir Shawal nga fexe ba woor bu la neexee jot sa sa dëkk bu fekkee yow doonoo ko juróoy wala wañe sa rëkk-rëkk ci ci ci ci kori gi waaye daal na nga fexe balaa nga doon jeexal nga woor juróom-benn fan ko def am nga yoolu ku woor at bi yëpp boo jeexee loolu ma nañ ko tuddee ak gunge ginnaaw boo weer jeexee te loolu lañ ci jublu loolu moom sax na ci sunu sunu islam daan na ko def daan ko sant jullit ñi bëgg ñu ñu defal gën waaw bu dee naafila nag daa am diggante yu ñu ko mayee ak ñu ko tere ak ñu ko sib moo tax na nekk bu jant fekk ba yëkkatiku ba naafila dagal mu door a fay euh, ñaar rakkee fa jënd jërëjëf sëriñ sëriñ kii lay laaj mu ne waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax ne kii di nangam acte ci loo xam ne bañ man ngaa gis nit rek acte ci loo xam ne bañ ci mbaax wala safaan wala lu ne ci moom loo xam ne mën naa am nit yëgul ko mën naa am sama biir yi ba dañ nga rek wax dara yow sal sal jàng bi ñu ci dégg waaye alxuraan day wàcc àndal yooyu yëpp xeetu firasa taxaw mu ne moytu leen foofu ak yàlla nit bu gëm yàlla dëgg-dëgg day muy foofu day leen bàyyi ndax day mel ni suñu borom dana ko yeggee yoo xam ne donte moom xamul dalil ko waaye dana ko xam mën naa gis ni rek ni ñu bu baax te mën am nit ñi foo wuñ woon foo xamee rek baax la mu mënu ko wax waaye xam na yëg-yëg boobu ne ci moom moom la ñu différence ci teraanga yàlla di terale jaam yi ko gëm te góorgóorlu ci mbaax ci la ba tax ñu mën a gis ci nit xool nit rek xam ne yow nangama ci yow wala nangama ci sa sa mbir wala sa aajo loolu la borom xam ko wax ne moom la wax ne it rek sëriñ si jazakumullahu xayran lii lay laaj mooy ndax kii jàng alquran dafa war a tënku ci benn riwaaya wala tënku ci benn riwaaya ñu war ci xam riwaaya yi sax moom yëpp alquran dem sëñ Tuubaa sax ne benn bi gën a ko wér ku man yëpp yëpp sëñ naa gàtt ci biir ku man yëpp ma ne war na ko soxla saa bu jàng bu ko neexee tànn na ci benn na ci yooyu ci ndax ku ci nekk alxuraan karim la war ma ci alxuraan man kon wax ne faw na tënk benn ki koy wax mooy ki nga xam ne jëkk wu dund benn bu jàngee yeneen jaxase maam yàq boobu moom li ko war mooy tënk benn mu leer ko ne jàng alxuraan waaye ki jàpp yëpp moom bu ko neex seen na jaar tan di jàpp rawatina sax tolloo ci kuy jàngale nga xam ne danga mën a jàngale ci ngir leeral la nit ñi wàcc boobu ak yombal la bu ci suñu borom jublu ba anam yooyu boo ko jàngi mooy baax a baax nit yi man xiraat yi mu teg sañ na bu ci mu jàngi kii tamit day mooy àtte for reyee sa gis nga ko lekk def na lu ñaaw ndax yonent bi alayhi salaam moo wax ne bu ngeen reyee na ngeen rafetal ni ngeen di rek misaalum yàlla ne am na ñuy ñuy wax ne waxtu ñu tudd ngir ne day wax bu yëngu di jàngal na waaye loolu nee na sax alxuraanu karim moom wax ne mën nañu koy def ndax wax yàlla amul fu ak la bu na ki nekk ci waxtu boo xam ne dañ koy tere laal bu dee laal sax la waaye bu ci solo ci solo waaye nag am waxtu wala ñaari waxtu sànq rek gis nga ngir waxtu loolu moom ci ci teel yi ñëw. jërëjëf sëñ kii lay laaj mu ne wakiilu ci yàlla mooy lan. wakiilu ci yàlla sëñ bi tënku nañu xasbuka min tawakkuli alla tara mujriya rizqika siwa rabbil wara wakkul gudd mooy loolu nee na doy na la xam wakiilu mooy. fu man a jaar dafaa jaar waaye ci yàlla rek saa bu nit ki yëgee loolu xam ne li koy dikkal ci yàlla rek rek lay am na nag ay jaar waaye kooku koo ndax koo déglu tamit nag sa bopp ndax yàlla moo santaane saw boo sa yëngutu moo la may bul jàpp ne say pexe la wala sa sa sa day ko mooy koo gërëm toog fi nga toog fàggu woo defoo dara yëngu woo loolu fii euh, bokku te wajur loolu bàyyi li li sàgg ko tere moo santaane sabab day bañ dem jàpp ne li ngay def moo la may waaye naka la war moo jublu la waaye sant waaye lay jóge ci yëngu ba nag ak si jeexoon ci loxo yàlla may wakkiilu mooy wakkiilu saa bu nit yëgee loolu nga xam ne ma nga yëngu waaye jàppul ne yëngu bi rek koy may waaye nag bu yëngu jot la waaye ku toog nag dafa dara ko may na doon ak bokkut ak ci ay jëfam it wakkiilu kooku daa daa daa bàyyi fële yàlla sukkandiku bi day xam ne yàllaay maye waaye yàlla santaane saw mu saw ba mu ne bàyyi ko mu yàlla loolu daal seen cheikh dëgg-dëgg moo tudd wakkiilu ci nekk suñu jàng donte ci genn julli la bu fekkee ne aay yi lay jàng amul irtibaat nga xam ne boo jàngee lii ne yàlla ne mu jur loo xam ne arab xamu ko danañ koy misaale dama ne fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaatin nga rafa aadam bi ba noppi rafa kalimaat njànginu mel dañ koy tere ndax day joxe loo xam ne ci arab arab mu yàq waaye su fekkee nag ne aay yi lay jàng amul irtibaat ñoom dañuy wax ne sañ ngaa jàng ñuy wax loolu am ñoo xam ne dañ koo tere bu laxat moom jàpp am ñu ne euh, dañ koo daganal bu laxat bi sax irtibaat ak ñàkk irtibaat dañ ne daal lépp alpaan la ginnaaw waaye jàpp naa li gën a dëgër nag yooyu yëpp mooy li gën ci kuy jur mooy bu ngay jàng jàng benn waay am na sax ci borom xam-xam yi yoo xam ne ay seen iftaar wax nañ ne barab bu ne barab bu ne xiraa bu fa siiw nit ñi xam booy jiite nit ñi sañoo jàng benn bopp te ndax da ngay tashwiis nit ñi da ngay jaxas xel nit ñi topp sa ginnaaw di déglu ngay jàng lu bokkut ak liñ ñuy noonu loolu leen jaxas ndax mbokk lañ nga ko laajal di ko laajal ci Arabie Saoudite la ko laaj benn mufti ne ko ndax sañis naa julli fii ci réew mi di jàng ci riwaayu Warsh mu la ko laaj bi ne ko dara jàngul ndax day jaxase bi bu nekkoon néegam moom kenn di julli nag bu ko neexee jàng Warsh waaye jiite mbooloo ndax dëkk bi ñëpp xafsa lañuy jàng kon wala su ngay jàng di jiite nañ ci beneen loolu nag jar ni su ko jariñoo ci barab bu ne ñi ngay jiite li waaye bañ xam di ko jàngee booy julli ànd ak ñoom ci loolu waaye jàng fi nii jàngale jaxase ci nekk ci diggante nit ñi ak sax yow léeg-léeg nga jóg ndax saa boo duggee ci riwaay bi boo ko jëkkul loolu mën nga koo jàpp loolu sax léeg-léeg jaawal di ci moo gën moo gën man daal dégg man di jàpp lool te ñaari wax yi moo jàpp ñu daganal ne sañ sa mu la am ñu dagan na bu fekkee ne irtibaat amul maanaam aay am irtibaat comme ni nga waxee jàng faate ba noppi jël beneen saak beneen waaye am irtibaat am nañu boo am na nekk am na wax nag ne ginnaaw fi nga nekk daal da nga jiite nit ñi di jàng ci commune bi dañuy jàngal leen waaye dañ xam ñëpp ñu xam loolu daal di def ne mu gën a dëppoo yokk lu lislaam ak jàpp daal dimbali ci nit jërëjëf kii day nee na moom dafa am lu ko yónni paas nee na mu dem paas am lu des muy laaj ba xam mën na ko téye ba ko delloo ki ko yónni wala da ko war a xam njëkk ba mu ko yónni ko am lii paase ko su fekkee loolu la ko wax bokku dëkk am lii paase lii la ne ko demal am lii nga paas ci dem daf li ma nàkkam bu desee ne ko delloosi bu ne ko am paas ko nag dañ ci dégg ne kon bu desee yàqu jazakumullahu xayran kii day laaj fii suñu borom wax ni wala tusalli ala ahadin minhum maata abada wala taqum ala qabri muy laaj laaj yi loolu liñ ci wax ñoom borom xam-xam dañoo woo yonent bi a salaam ñëw di ko jullee Omar dogale ko ne lu tax nga bëgg jullee kii nga xam ne wax na nangam wax na nangam lu ne yonent bi maa tànn doo tànn waaye da ko wax ne ko boo leen jéggalu woon juróom-ñaar fukki yoon jéggalu nga jéggalu leen ak ñàkk leen dañ koo tànn mu tànn daal koy jullee waaye bi mu ko jullee ci laay wàcc ne ko nag kenn ku bokk ci naafeq yi bu faatoo di ko génn wala tusalli ala ahadin minhum abadan wala ndax la dañoo yéewu bi ñuy faatoo ak fisq lañ faatoo fisq boobu dañuy wax ne ak kéefar dañoo génn ci diine Omar nee na man jaaxle woon naa sax ñeme bi naa ko yàlla daa gis-gis boobu ngir day saa woon daa euh, woon am na jàpp ne xëy na bëggoon naa gën daa ak bëgg yàlla yeneen ko yéene ko yërmaande tax mu ne ko jullee waaye alxawaat yi xam ne am naa fekk la naa fekk la wër la doon nëbbu kéefër ne ci biir jullit ñi te xam na ne yéefër la bu dee kenn bu jullit dees ko ñaan wala su tànk ci bàmmeel ndax boobu yéefër bu leer kii ngay daal wala wala du ko jàppale kalaama ci ak wàllu sëriñ bi jàngal nañu ne yi moo di sa nabii yajuusu fii lépp loo xam ne dana ñëw nekk xarbaax nekk moo di sa yëngu mën naa ñëw nekk karaamatil wali yonent daana dekkal wali kon wali yu mën naa dekkal ko fa te taarix nett la ci saxaaba yeeg eh, ñi ñëw taalibe yi yëpp sax. am na ci koo xam ne dafa doon jihaat aw fasam fas wi ci yoon mu ne yàlla bu kenn jox di ma ñax yàlla yàlla tekkal fas mu war ca jihaat yi ba dellu këram ba mu delluwaatee ne doom ji teggil teggi fas wi dafa ko àbboon ba mu teggee teggi fas wi daal di tëddal sax na ci ay yoo xam ne eh, ay seen xam nekk nañ ko kon day jàpp ne karaama eh, lu ma a am ci moo gis rek xëy na wuute gi mooy nit ñoo xam ne moom sax day lëkkaloo woote ak day lëkkaloo ak taxat bi ñu lay wet di gën a ñu mën xalaat nag yàlla muy tere la jàpp na ko ñu sàkku mën naa jékki-jékki fekk ay boobu mu waaye daal lu mën a nekk moo gis ak yonent kon mën naa nekk karaama ci wàll yi te loolu dekkal faatu kii mënul ñàkk loolu lu dagan nag lu mën a nekk la te bari loolu suñ ko def am na ci yoo xam sax nag am na lu yaakaar bu fekkee da yilif koo xam ne yow xam nga ne eh, am na ñoo ëpp yaakaar ci ñoom mais seenu ñaan ñoom la ñoo la gën a jege sa borom nga dem ñu fasal la ki nga yilif ñaan ci loolu ëpp na yaakaar day doon lu baax loo xam ne dañ koy rafetlu ci ci nit ki mu def mu sax nag kon ñi nga xam ne euh, mën nañ leen di ay musallin ndax ñi ngi ci biir jullit ñi nee jullit waaye nag dañuy sax waxani sax amul soxla dañuy ci sawara dana fëral alkane bu daa toskare ñaal waa ji nga sore d'accord day yëpp islam lañ doon woote yu mel noonu am nañu tàmbalee suñu loolu nag liggéey yoo xam naa borom xam-xam ba xam gis ni ci am waaye euh, ak lu mën a xew li ñu jàpp mooy euh, Sahih Bukhari moom xeet yi nangu nañ ne ne li ci nekk lépp lu ñu nangu xëy na yu mel nii nag aw déggit danaa am laaj aw déggit ko su demee ba ba saxal ne wér na ci sanam bi ak mat na bi day laaj aw déggit déggit yooyu nag liggéey borom xam bi la nekk na seen genre du man maa ngi fii di ko laaj waaye jàpp naa daal euh, dal na war nañu maa bàyyi xel ne xadis ak yow Sahih Bukhari Muslim li ci nekk lépp wér la ay déggin nag man na ci am yoo xam ne mën nañ caa wuute mën nañ ko déggee mu wuuteeg zahir lafz bi firi leen loolu mën naa am baax baax waaye weddi loolu lam ñu jural déerul ci xel bi tey danañu delloo ginnaaw lu bari bari seen seen gis ne foofu la yiw toll mu fase kenn bàyyi ko bay daje jeex na mu door takk ki mu bëgg a takk waaye boole lu ko moom dañ koy tere ci charia sax jëkk ko léegi mbaa boog daa waaye ci leer moom ne amul benn gàtt ci woor te it woor moom jaay ko aw nag ñam dimbale ko ci ismu la te borom waxoon na ne wala taawanu ala ismi wala waaye su fekkee ne da nga jaay léegi nit ñi jënd yóbbu xamoo ko mi koy jënd ku ku sañ ku sañ ku sañ lekk loolu sañ lekk loolu yow mi jaay yow lu la daan fi mu lay tege daan rek mooy nga dem ba xam ne kii moom lii dong la ko dee lii ko dee la dana kooku moom bu rëy su tëdd teg na. jërëjëf sëriñ kii lay laaj nee na moom dañuy wax ne mbirum koor fi nga nekk moom lay jàpp waaye fa nga jógee itte boo umee woon foo xam ne tey am nga am nga fanweeri fan tey weeri fii ñun nga a saxaat bi man ngaa jóge woon fii dem foo xam ne da ngaa woor ñaar fukki juróom-ñett rek ñu seen weer gis da ngay woor kooku day fay ndax weer doon ñaar fukki juróom-ñett xaw nga fay beneen bis bu ma tey ñaar fukki juróom-ñett nag nga woor yi war a dul seenu weer fi fi nga fi nga nekk moom lañ moom moom moom lañ bàyyi xel waaye fa nga jógee doon rek fa ma jógee matal nañ xam weer kon matal naa xam ne damay teel fi nga nekk moo ko loolu la borom xam ne saxal ci misal ko suñu fan. loolu lu am si loolu la ñu bari te léegi yaakaar naa ñu toll kii day laaj mu soppi ñu bal waaye nag ko def tuuti ñu ko naan bëgg day sax nag nit koo xam dafa doon julli ji mu am ngànt wala julli garaaw kooku mën naa julli ci këram waaye du ko doon kon foofu dana am julli ji yoo ko koo xam ne dañ ko raw ci jullikaay ba sañ naa julli moom doom moom soppi nañ ko ci moom ndax julli ay sunna ma ko ci koo xam ne ay ñu war waaye ñi jël si nag man du la ci ñoom jigéen ñeeg musaafiroon yi dañuy suñ man dugg ci ñoom kuñ ci raw rek ak ko sopp nañ ko it boo xam ne mbooloo mi dala da ngaa yéex a génn wala nga am gàllankoor ci yoon wi ba fekk julli wa ci la sañ nga julli yow kenn waaye doo ko kon xutba bi ci la bokk waaye soo ko def ci waaj dara teewe ko it nag bëgg nañ ko lool waaye nag du farata la tam bokkut ak ajuma ji nga xam ne moom xutba bi dañ ko war a teewe war a dégg tey sax mas naa xam wala ko ne julli ba noppi ne ku mu neex toog déglu ko bu neex dem loolu xamee nañ ci ne déglu ko moo gën waaye nag nekkul sànq boo xam ne boo ko téyewul ñu ne ñu liggéey yàlla waaye nag gën ndax aw yu lañ cee wax te yiwoo ko soxla ko soxla ko kii lay na suñu borom daa wax ne rabbana borom xam wax moo di ne yéefar yi ñooy wax loolu moom rey nga nu ñaari yoon nu ñaari yoon def ci ruux mooy dundal loolu mooy dundal bu nu ñaari yoon mooy rey nga ñu bañ nekkee ci suñu biir ndey amagul roog wala buyuutin ah dekkale yomal xiyaam mattal na mattal na sanatayni wa axeetanaa sanatayni na ne nangu nañ liñ def ci bàkkaar lépp ndax am nañu génn sawar loolu ñoo koy mébét na dañ leen a waxoon yàlla ñu ci loolu la ñuy sax loolu yéefar yi ñoom moom dund ñaari yoon la nit di dund dee ba nga nekkee si biirum ndey bu ci yow boo dee mag mi néew boobu miñ ci miñ ci bi bi nga demee ci àdduna bi dund bu yàgg di faatu faatu la bi nga dekkee yow xeex bu yàgg kii de laaj na benn waay yi koo xam ne day ko ci ciram ba yëg boppam mu ngi laaj ba xam jëkk jur yi muy def lu àjjal ci islam ci masal bi loolu dafa xaram ndax borom bi wax fi ñu mayee nit ki mu jëfandikoo mooy la diinam li furuujihim xarrun illa ala azwaajihim jaate ba ci mujj gi dafa mën a taxawal naa leen ko wulaay ko mu laal ku fi weer sa ndox rek tooñ nga jéggi nga def kon jaxasoo sa soxna ba jàmm bi am sa jàmm yeneen yoon bu ñuy faje bànneex bu mu lislaam kon di focc ay cër ba ba ba yëg bànneex dafa xaram te it xam sa saxal na nit baaxul yoo teel bari na gàllankoor ñu jël nit kon lu baaxul loo xam ne nit ñi ko moy war nañ te nag na ñeneen yoo xam ne parce que bi ñu nekk lii moom dafa xaraam te fii la ko teg ginnaaw borom moo wax ne xooli taxaw war a asale ginnaaw soxna ak ak ak moomeel kon leneen fi yëpp leneen leneen lu ñuy lu ñuy faje bànn rek loolu nag lu dëgër dëgër loo xam ne lu mat a bàyyi xel. kii dafay laaj mu ne. say laaj nag fu ñuy tudd yàlla koy sonn bari na lu yàlla ak di jënd loolu sooy mos a digal koo xam ne day def saa bu rek lu dañ koo sant nag boo defee ko tooyal kon mooy jëlale buntu jëlale seytaane bu la waaye nag bari na lu yàlla jege nit ñàkk fonk tudd yàlla tudd yàlla dafa dàq jëlale ko dàq rek mu wér incha allah. kii mbokk mi laaj nee na da doon julli gis na sax boo ko fàttewul sax jàng euh, Fatiha ak saar rukkoo ba siggi loolu jàng ko loolu li gën a lëkk ci ma sëgg nag mooy da ngay ko noot soo ko fàtte woon nag ba rukkoo boo siggee mën ngaa kon mën naa nekk rawatina ko ci koo fàtte mu nga dem ci lëw ci li mën naa na ñaan ji ñu bëgg ñu wax wala ñu jàng jéggalekat la te it da nga bëgg lool koo jéggal yàlla ko jéggal soxna Aïcha moo laa dee yonent bi alayhi salaam ne bis bu ma daje woon ak laylatul xadar xam ne ko diggéel lu muy wax mu sartu ci jàpp am nga ko def di jàppoo waaye nag bu mën a xew jàpp moom ak julli ci moom mooy ñu fexe ba taxaw jàpp ma ngi dañuy wax ne taxaw ko jàpp doy na dal fexe ba fa sa jàpp doy na jàpp loolu doy na dal sa woo jàppale ci gàncax day laaj ba fii suñu borom di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan lak muy laaj maanaam laaj bi dund moom xam nga daa sax ne yonent bi alayhi guddi farata la saa bu guddi jotee yow na nga yeew bu julli guddi bokk na ci xasaa'is nabi alayhi salaam yi nga xam ne ko war te warul xel julli guddi ci la bokk moom suñu ko bàyyi sëñ bi bàyyi julli guddi nit tuuti jóg julli loolu julli boo xam ne du farata naa fi ne loolu boo koy def yàlla dana la dekkal dana dana la ma xam bu rëy rëy loolu farata la ci yoonu islam bi borom xam wax waaye nag lu ñu sopp sunna suñu sopp la ko xeet kooku ci man di ko def guddi lu baax ramadaan ak guddi ramadaan julli ndax yàlla ci da ci jege borom lu ci jege jaam bi lu ci waay ñaax na moom ku jégg mu jégg la kon waxtu bu soppal bëgg na lool ku yow lu na lu jàng jazakumullahu xayran kii lay laaj ne ñaari laaj yi la bëgg ñu firi ko ko ak ni ko mën a dëggale fi sunu borom wax ne innaka la tahdi man ahbab ak fi muy wax ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim muy laaj ñaari laaj yi ñu ko mën a digg waaw jubal rek jubal benn mu ne yow de da nga da nga jubal nit ñi jëmi leen ci yoon yàlla yoon wu jub hidaayatu moom ñaari maan moom ñaari maan teg ci yoon ak gindi wane yoon wane yoon moom yi mooy seen liggéey teg la yoon loolu mooy innaka la tahdi ila nit ñi wan leen yoon ku ci topp mucc ku ko sàggane ak waaye innaka laa tahdi man ahbabta mooy hidaayatu bi nga xam ne moom loxo yàlla nekk mooy teg ci yoon xanaa nga tegu ci yoon moom coowar yàlla yàlla lay baaxee nga gis dëgg waaye ñu war la gis ko moom daa war baax ak jiite ku ne day ci nekk boo jaaree mucc boo jaarul diwaan nga tegu yàlla kon bu dee la tax di hidaaya boobu nga xam ne mooy hidaayatu irshad hidaayatu teg la ci yoon nag ba nga xam yàlla nangu yàlla loolu ci mbaaxu yàlla day aju waaye nekkul ci loxo yonent bi alayhi salaatu di mën wax yi mu ne ndax ko koy jàmm mooy mu dugg ci diine jàmm moom yéefar mooy mu tuub dugg ci lislaam dañuy bëgg ñëpp ñu yéen ñu tal te ñaanal loolu mooy maanaam wax yi sëñ bi waxoon ne irham jamial wala yërëmal ñëpp kon yéefara ñëpp li ci biir mooy ñaan nañ yàlla ni yàlla gindi leen dugg ci diini ndax ñu mucc boo liggéey nit wari su ko yéene sawar wari su ko yéene alkani kon kuy dox rek boo dajee mooy ñaan ko yàlla fadakallah nekk yàlla yàlla gindi loolu mooy am muccam mooy jàmm bu xasee faatu sañatoo koo ñaan ndax yéefar ci géefar ne li yëpp suñu borom moo ñu tere ñaanal ak yéefar waaye kuy dund sëñ bi koo ñaanal yàlla jindi ko te loolu bu baax ñëpp danañ ko santaan ko def ndax yërmaande yàlla dafa yàlla ko wëri suñu xat yi moom seeni fet bu dee fet diini moom ànd caag ñoom dana dañuy wax sax ne buñ doon feet feet boo xam ne ci seen tur bi yow nga yor oto ñu luyee la jëlee ko yóbbu nga yóbbu nga yóbbu leen fa dëgëru nga ndax yaa ngi di dimbale ci baax ci seen mbiri àdduna man nga jël dimbalante ñoom kuy tukki ci ñoom di doxee soxlaam fay la nga yóbbu ko wala nga jaay dara loo xam ne dañ koy dundee sañ nga koo jaayante ak moom amaana bu ñu wootee ak feet di màggal seen diini bu ca wuy ji bu fa jaay marchandise bu fa daw yóbbu di koy ci neex ndax yaa ngi kon ci àdduna ji ñi xam ne bu diine seen diine diine naan la kenn waruñu jàppal kenn jàpp waaye nag ci dundu àdduna lañ bëgg mën na ci jàppalante ñoom euh, li mu waxee daal ne mu la am na dina yuqaatilukum fi diin wala yukhrijukum min diyarikum wa tuqsitu ilayhim léegi naa jëflante ñoom ci ay bu baax ci ñi fi àdduna amaana loo xam ne dañ ci màggal seen diine di ko ci ab jullit bu du ci ànd ak waru leen caa jàppale waru leen caa wuy ji buñ la wooyee buñ la ci joxee ñu waru ndax loolu jàppale leen caa neen la ko xam ne war naa gën a asaka kuy ak kuy jaay yàpp ak kuy bay ak ku commerçant ñëpp ku am alal yoo xam ne denc nga ko at ba mat ki sama sa bopp kon kii jaay commerçant ab commercant alal di ñu am ci jaay moo xam jën la jaay moo xam ne su ko dencee mën na te mën ni sa passeport waaye wax nañ ci jën la wala ci lan la ko jëlee loolu it bu ne day koy dem jàpp jën di ko jaay ko lekk kooku amul alal du muy waaye ku denc ni sax ak asaka war na la moo xam ci xeetu njaay boobu mën a jënd ci njaay yi nga xam ne islam da euh, nekk. njëriñ li nga xam ne moom jëfandikoo ci xaalis bu leen ko fàtte buñ ko dee jaay dañuy gis ne njëg dañ koy wàññi maanaam boo yoree mille franc boo xam ne dafa fàtte soo ko dee jaay ci ñu ko jënd buñ ko dee jënd buñ ko jënd huit cent wala lu demee noonu muy laaj ba tax loolu luy atteindre ci lislam bu fekkee ne boo demee ci banque ba de mu doon mille franc sa ñuy su boo jaayee lu yées ndax ba tey xam nga aw raq naqat yi dafa taxaw taxaw dahabal fi ndax ba tey ci la sukkandiku bu fekkee ba tey jii dagg na waaye boo demee ci bàq ba li mu doon jar lay ba tey ñu ngi koy nangu xotti bu bii dugg dañuy wax ne ak dërëm mu ay lu tax ñu wàññi xibaar maanaam jëflante ci riba dërëm mu ay lu tax mu te lii xeetu jëflante ci riba ci boobu amaana bu fekkee dañu dem ba ne doonatul lu ñu nangu ci bàq ba nga xam ne xëy na ki koy jël moom leen la ko doyee suba nag mooy soo ko jaay lu ñu di ndax doo ko tuuti ñi nga xam ne dañ koy dañ ko doon waaye fii nangu jàppe ko 1000 francs comme ci des xottu ko bii wërtu tax ñu di ko jaay lu yées ba ndax boo wecc ku nga ko ci lu yées ci lu yées boo jëndoon marchandise la bu mën nga jënd marchandise waaye wecc ko ko la ñu wecc parce que tey mën naa xotti bu bare ngay ci jënd bagage waa jaay loolu moo ci sa bu fekkee nag da jox da koy jox 1000 jox la 800 francs loolu dëgg la ginnaaw mu demee ci banque ba mën ci am waaw euh, am na zahab bi zahab wala fidda bi fidda ñu jaayante ko ci teew ñu teew ba nag ëpp leen ci am loolu ba tax jërëjëf sëriñ bi kii day laaj laaj yi suñu borom doon wax ci bu ngeen di xeex ak yéefar yi ba jekku leen bañ def leen dara ngeen di fayu bu leen ëppal ndax bu ngeen ëppalee loolu faaqibu misli maa waqibtum bi da ngeen fayu lu tolloo tooñ giñ leen def ku mën a muñ sax nag moom waaye euh, nit tooñ la nga tooñal bi ko loolu geneen tooñ a ci biir ndax boo yemee boo fayoo soo fi nga lim la tooñ rek yow it tooñal ab jullit nag wër ta nekk ab tooñkat moo xam dañ koo tooñ wala tooñ sañ ngeen a fayu waaye kenn fayu lu ëpp ñu dóor la benn nga fayu fayu ñaar yoon tooñ nga ndax ñaareel boobu du àq jox kon tooñ nga te tooñ nag baaxul donte tooñ bi yëfër la lislaam tooñ lay ndax sax na ci xadis ñaanu ku ñu tooñ yàlla du ko delloo donte du jullit donte yëfër kon tooñ baaxul 2024. kii day laaj mu ne li ñu tuddee jullit fay fàtt luy àtteem ci lislaam nee na mooy jullit bi ñuy julli ci àjjuma ñu mujj ci weeru koor. xadis bi ci rot day borom xam-xam maase nañ ci ne ne xadis bi wér li téere jàngale yépp nag mooy ku ay góor julli raw yu bari luñ bari bari da nga ko da ko war a fay yépp soo manee saa boo jullee tisbaar fay jar boo jullee takkusaan fay benn nga xam ne boo amoon ñetti at yoo julli boo ko defee ñetti at bon wax ne kon julli ko xasee xam da ngay fay lépp boo ko xamut it da ngay fay di fay ba sam xel daal ne la nga leboon bi waaye wax na ne nanga baraka yoo xam ne boo ko jullee rek bu wecc nanga mi junni ak nanga yu bari ci wax loolu li borom xam-xam wax xadis bi mooy du xadis bu wér pour benn sant ngeen ko nettali kon du wax dëgg daal la a wax. ak sama bopp yi lay ko. ginnaaw moom ndekete kooram daggoon na bu yàgg téegu waaye bi muy doon moom yéenee yàq koor yi la yéene ju yàlla koy fay na nag wax ko ne day kafaar amu ci ndax dugut koor ci noonu ndax li muy doon fekk na loolu yàq na ko wax ne bu fekkoon nag daa njëkk muy gis baax day day fay ba nag kafaar waaye foofa duñ ko wax ndax li mu doon yàq waaye nag yéene yàq la na moom ndax ba loolu yéene woon day dama la am liggéey dafay daal di ñëw julliwaat ñaari rakka bu jullee ñaari rakka euh, mooy julli imaam ak mu door a jóg nag fay lañ ko reyoon ndax comme ni mu waxee mas bokk la fekkewul rakka bi mas bokk la su boobaa day fay jul euh, door a fay julli day ñaari rakka fay nag bañ ko raay woon buy fay nag boobu bu fekkee am na ñu toppoon ci ginnaaw am na climat ñooñu lay taxaw xaar seen julli jigéen yow lañ jublu ñaan yu bari la mooy ñaanal ko yërmande jigéen li gën a siiw na ci masal bi mooy ñaan gi ñuy wax ñaanu Abu Hurayra allahumma innahu abduka ibnu abdika di nga xam ne téere nga di euh, ndax gàtt na te wax na mu bëgg ñu di ko ñaanal ñeew donte nag geneen ñaan bu ñu xam ku mënta ñaan dara waxal yàlla ku jéggal téeram yàlla ñuy wax ne li ñuy wax ki nga xam ne yomal xiyaam day jël ak téeréem ci loxoom càmmoñ wax yooyu ñuy wax bu noppee nag yàlla day wax malaaka yi ne day wax malaaka yi ne jël leen njot leen ko yeew leen ko jaar ko sawar sax ko sawar bu càll la boo xam ne juróom ñaar fukki xasab la ngeen ñi laxas ko sànni biir sawar ndax daa gëm yàlla bu mag bi daawul lelee kon tey lii lañ koy fay koo xam ne yéefar la bu yomal xiyaas li ñuy xamee ni ku texee di nga mooy sa téere boo ko jot wetu càmm luy dikkee nga nangoo ko la ko xiyaas mooy wax ne yàlla ci la mu di kitaab yi wala madri ma xisaab yi yàlla dafa kaan ko def ne xudoo foofu kon ki nga xam ne yéefar la di nangoo ak téere càmm moom la yàlla digal ma la jël leen ko buñ ko jëlee wër yam jël la waaye ñooñ leen wala leen tànk yi loxo yow rek wutu càllal la xase ko sànni ko sawar ndax la gëmutoon yàlla daawul leere aw ñam la fay euh, jërëjëf sëñ Backe kii moom ko jeex na mu sant ci waaw loolu day li may laabire sama bopp di ko laabire mbokk yi mooy ñu xam ne koor yàlla nga ko digal ngir dañ ci tàggat mu mel ne bu diggee ñun ñëpp dañuy góorgóorlu bu baax fonk jàkk fonk jàkk alxuraan fonk dimbalee fonk saraxe lu baax lu ñu koy def jullit yi ak taalibe yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi fonk jàkk yi ñëw ci naafile yi dundal topp ay ndogu di joxe di dimbale di joxe dimbali bari loolu nag li muy jëriñ mooy borom ramadaan a jàll waaye ñu baax baax yooyu jàll kon mel na ku ci fexe ba ci jàpp di fa jullee sa waxtu juróom ramadaan jeex du bàyyi ndax ndigalu yàlla di ñëw kon ñu baax yiñ ci tàmmee ba téye bokk na ci laaj yi nga xam ne boo ko jàpp jariñoo ramadaan dañuy wax ne bokk na ci màndargam xabu ku génn ci ramadaan li xam bokk na ci nga yëg ni ba ramadaan ñëwagul wuute naag bi ramadaan jàllee ci gën nga cee jub gën nga cee bëgg lu baax gën nga yëg ci yoon ci boppam rek koor na waaye dañuy bañ lool loo xam ne bu ramadaan dikkee nga xam yàlla sa borom te bu ramadaan jàllee nga umbal yàlla la ko dafa lépp ñu fàtte da da ngay nit du jàkk dootuñu gis loolu naa fi la guddi ndax bàyyi xel naa fi lii ñu def ci koor yonent bi alayhi salaatu wasalaam soxna Aysa nee na mësta bàyyi fukki rakkaat ñaar ak ak ak fukki rakkaat sax bi tam yoo xam juróom-ñeenti rakkaat fukki rakkaat sax bi fekk mooy ndigal li sëriñ bi ndigal li mu joxe woon bi sant leen gën ma ko ni yëpp loolu ci yi ko war ma daan ak pour la ma daan pour dugg leen da nga naan fukki rakkaat ñaar fukki rakkaat sax tam yu mel noonu yi fexe ba tàmm ko ci ramadan fexe bu yeel ko ndax lu baax loolu tax da nga xam ne nawet bu ko defee mu jural la yiwal la nga laaj yu baax boo ci tàmm ramadan da cee nga wéy moom su war seen ba jëlaat beneen bu yàggee da nga dem bokkuñ njëkk te yàlla loolu bëgg na waxoon na ne dama farataal ci yéen koor dama ko defee ñu leen jiitu woon ngir bëgg ngeen am taqwa taqwa bi nga xam ne ku am mucc na nag laaxira ci lu mel ni lañ ko amee ña nga ñaan suñu borom dafa taw na dafa ñu barke nangul ñu li ñu lépp baax bari ci lu baax ñu di ci bokk koo dajale da yëg ni ak mbaax ñor na ko taxaw bu dul baax ñor na ko da ciy sawar lool waaye nañ ci xam des ci nag bu ramadan jàllee des ci loolu mooy yàlla bëgg ci noonu kon danañ jëlee ñu dàq di sant bu baax di ñaanal ko yëpp ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk bi ñoo mën ci baax yi suñu borom dëgëral leen loolu leen yëw ñu fekk ko ramadan loolu daal bokk yi bokk na ci seen sax dégg sax di bokk daal bi yëpp bokk yi bi naa kon ngeen dajee nga gën a seetlu ni fu ñu toll nii ñu bari ñu tàmm di woote am ko loolu tamit léegi ci bëgg tàbbi ci nga xam ne yàlla bu toll ji toll. waaw loolu day wane rek ne ñooñu nanguwuñ leen ki nga xam ne ramadaan jàll na nga delluwaat fa nga jóge woon aajoon nga fomi ramadaan jeex rek nga ajit kon yow ramadaan tërut ci yow loolu loolu moom mën a bàyyi xel jóge ci lu baax am yu wëree ni mbokk yi téye ko fekk loo ci dolli moo gën nga yàq loolu moo tax moytu. jërëjëf sëriñ bi kon ñu ngi koy sant bu baax ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma ci laaj yi mu limoon ci laaj yi mu limoon lool te mu tontu ko tontu bu leer lool